ñi ko doon wax fa ñu toog dañ ko dégg nañu xam ne loolu c'est pas vrai li koy montré mooy ko bi bi fi BSDA di nekk dañ daan fay ko trois ou quatre fois ci année bi léegi benn yoon ngay fay ci année bi wax sasem bi nga daan fay ko musicien yi ah, musicien ci monde bi xam nañ ne euh, sunu sunu mbokk Nigéria nigérian bi ci il au Sénégal dañ ko war a jël euh, dañoo war a droit mi yóbbu ko Nigéria ñu fay ko foofu ça doit se passer comme ça

c'est de la honte nak mu ngi le ministre de la culture mu le ministre de la culture Mo Il a audité SODAV mu ngi bu ngeen bu ngeen Google mu ngi vérité as ngone Ndour dem na ngeen xol ko ci ci Google li ngeen nekké du yoon pourtant ñun dañ ko ko

nga demaat nga ne léegi da ngay voté waat mais ci ban dëkk la nekk yow alalu jàmbur ci ngay recruter alalu jàmbur ci ngay def séminaire ah alalu jàmbur ci ngay def ay ay ay dem say mission ay di di ci euh, loué ci kër kër gi ñuy loué fii environ gaa yi dañ dem na ba cinq cent et quelques mille bu ñuy loué benn appartement muy xaaritu artistes yi benn artiste na jóge fii dem di feyeku bu jógee fii bu bu jógee Tamba du am passe ko delloo pour pour une année

bi ma demee di soda bi passé dama ragal ne ñii ñëw sax moo gën a dañ ma bindal benn feuille rek ne ma nga fi am mais xanaa li ñu ñun war nañ ko war nañ ko justifier ci benn papier ñu ne ma non da ngay dem seeti euh, xaw ma xaw ma sow somme bi ñu bindal ñu ne pas parce que deux ans ici c'est pas vrai nañu fii Sénégal ñu ñoo gën a Sénégal ñun

Qui euh, bi nu tuddati les droits les droits voisins les droits yi nga xam mo wara war amna am ñu ñu fa ba pare. copie privée bi nga xam nañu né kaaj bi fa lay ñëw xaalis bu bari fa lay ñëw. préparé nañu suñu nit yo xam ne tegal leen siège pour lan. pourquoi mu nek la musique pourquoi ñun on interprète le président Macky président ñun dañu ñun dañu bëgg dundé suñu ngor ak suñu ñaq ñun ay gor la dañu bëgg dundé liñu liñu liggéey. lii ñii yore sunu xaalis bi nga xam ne ñoom ñoo koy fayee ko hmm. di ko di ko lekk dañoo bugg président nga wax ci ñooñu audit bi nga waxoon ne ñu ngi koy def ba léegi ñu ngi lay xaar depuis le 14 octobre ñu ngi toog di xaar ñooñu ñooñu ñu audité wu leen audité guñ leen ñu ne dañu def assamble générale bay wàññi 12 di di wala 12 ci yan fànn moi j'interpelle les grands musiciens yi ñu fi wax Youssou Ndour Thione na ko yàlla yërëm toog nañu waxtaan ci lii te lii moo doon combat

ku ne mën nañ laa jox ko ma taxaw ñu may dénk chaque fois mille francs may jël sept 700 di ko dellu di leen dellu 300 ku ne mën na ko soyons sérieux gars yi